gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam dellu si nañ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission alhidayatu min alkitaabi wa sunna tabarakallahu ñu ngi eh, nuyu soppe yépp tabarakallahu eh, لأن ندوكل تبارك الله وشي بسبو تدبي دي آه، بسبو مخمني بمعنى قد يجي يودد مل مدي قد يجي نخمني تلا سيد شحمد التجاني رضي الله تعالى عنه جوتي آه، تبارك الله قرار بوري بوبو بألكتنية ba tax ديكو المكتوم وفي المحرم غدا غوثا رشيد خليفة عن المهيمن المجيد أعطي ذاك شيخنا بعرفة حكاه من حققه وعرفه وبعد شهر وليال التقى إلى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم عن كل الورى سوى, سوى النبي ما وراءه وراءه mu mel ni kon ñu ngi ndokkeel soppe yëpp ñu ngi ndokkeel taalibe yëpp tabaarakallaahu ci guddi gi ñaan yàlla yàlla ci yegg ak jàmm te lu ci waay di ñaan yàlla rek lu ci waay def yàlla na ko yàlla nangu ndax moom itam ci dix-huit safar di fukkeelu fan ba ak juróom-ñett ci la ko suñu borom subhanahu wa taala eh, takkal garaatu maktuum soo demee ci buxyatul mustafida téere ba noonu la ko bindee noonu la ko waxe xatmi yi la am ñu teg ci weer ak i guddi ci fukkeelu guddi ga ak juróom-ñett ci weeru safar ci la ko suñ boroom subhanahu wa defé mu di maktuum di ku yàlla neubul mom moom Cheikh Ahmad tijani suñ borom neubuko neub go xamné kenn munu ko xam kenn munul xam ay ngotam kudul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax moo cheikh sayid tijani euh so demé ci ben bayit boo xam ne sëñ Tuuba radiallahu anhu tudd na fa waliyu yu bari wax soo demee ci eh, benn téeréem moo xam ne téere bi ku tuddee Munawwiru Sudur bind nañ ci téere ba moo laale ca bayit bile موخته بين سطر بني آه، قال شيخنا رضا التيجاني ماذا لبين القوم كالمرجاني تتدنى اي كده فنجيتكم وعي قراد بي سي الشيخ ما تيجاني رك لكو سنتو باجوخ تموديني سي الشيخ ما تيجاني ma zaala mosul dañ baynal qawmi ci biir góoru yàlla yi boo ko fekkee ci seen biir kël marjaani nee na dafa mel ni wurusu marjaan ci seen biir bi maanaa góoru yàlla yi bu ñu daje di awliyaaw yi ñëpp përëm lañuy doon Seyd Cheikh Tijaani yi dong moo ci wurusu marjaan Sëñ Tuubaa mu ñàkk kañaan mi لولا واخ لما زال بين القوم كالمارشاني نياري قراتي ريك نك موتخ مؤمخة مبوغو مودي ختمية أكتمية بختمية بختمية وكتمية له فضل على الغير kon Seydi Cheikh amadou Tidiane ku mu gën rek ci ñaari garaat yoy la la gëne moy khatmiya ak katmiya ba taxna moy borom al qutbaniya al uzma bi ci des itam mooy ki nga xamné euh ken xamul deug deug maanaam dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yàlla mi ko bind moo tax ngay dégg sëriñ bu mag ba as sayid cheikh ibrahim rayaxi di wax ne xawthul baraya abul abbaasi ahmadu man maanaahu acdamu an yujla bi qirtaasi nee na sayid cheikh ahmad tijaani mooy xawthul baraya mooy xettalu mbindeef ndax li jaare ci loxoom di dugg aljanna ci mujjug jamono amul benn wëliyu bu am maqaama boobu ndax garanti bi tariqaam am loolu nag ëllëg lañu koy xam ndax àdduna fi moom dara leeru fi Cheikh Ibrahim Rayahi ne baraaya mooy xettalu mbindéef fi ñu ne ko kan mu ne abul abbaas mooy abul abbaas Seydi Cheikh Ahmad Tijaani ñu ne ko kan mu di Ahmadu Ahmad laay wax mu di as Seyid as Cheikh Ahmad Tijaani awtul baraya abul abbaasi Ahmadu mu ne man mooy wëliyu bi nga xam ne nee na maanaahu dëgg dëgg dëgg darajaam nee na aadamu nee na moo gën a rëy an yujlaa ba dee fi ko feeñale bi xirtaasin nee ci mbind nee lu nit ñaw ñaw xalima nee na te rëy xam-xam nee na te mën misaal nee na mënta misaal walla muy wax walla muy xamle dëgg-dëgg darajey Seydi Cheikh Ahmad Tijaan yi ndax maktuum la yonent bi rekk ko xam ak yàlla mi ko bind loolu nag mu ko jotee ci guddi gi di guddi 18 safar fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar moo tax nga dégg sëñ Tuuba radiallahu ci ñàkk kañaanam ak mbaaxam tabarakallahu di wax ne qaala cheikhuna rida rida tijaani maa daala bayna alqawmi kalmarjaani loolu nag mu ngi doon nettali sayid Cheikh Tijaani naka la gisee tasawuf ak naka la ko waxee mu ubbeeku bayit bi soo demee ci mu mu nawiru sudur ci téere boobu danga fa fekk bayit bi mu mel ni kon eh, ñu ngi ndokkeel taalube yi ak soppe yi di ñaan nag suñ boroom subhanahu wa moom mi nga xam ne moo yor ak njub ci loxoom di ko jëme ci jaam ba ko soob yàlla na ñu may njub def ñu dëgg dëgg jullit te def ñu dëgg dëgg taalube cheikh yàlla na ñu dund ci tariqa bi dee ci dekk ci ñu nag suñu njaboot tabaarakallahu ak képp ku ko bëgg te am yéene bi yàlla na la ko yàlla defar bi jaay seydil wujud mu mel ni tey nag dañu bëgg a waxtaan eh, ci lii ñuy tuddee Eh, ak tasawuf ak tasawuf coow li bari na ci waaye li ñu ci mën a jàngale rekk moo di ne xam-xam la boo xam ne fokk nit ki dugg ci pour xam dëgg-dëgg lan moo tax tasawuf jóg mu mel ni xam-xamu ñu baax ñi la waaw xam-xamu gaañu baax ñi la xam-xamu tànneefu yàlla yi la xam-xamu ñi yàlla féetewoo la mooy seen yoon di seen bëgg-bëgg di déeg ba ñuy naane mu mel ni dañu wax ne al ilmu ilmaani xam-xam ñaar la ilmu al zahiri wa ilmu al batin xam-xam bi nga xam ne xam-xamu bisi la ak xam-xam bi nga xam ne xam-xamu biir la xam-xamu biti nag moom lañuy ñuy tuddee alfiqhu di alcharia mooy xam-xam bi nga xam ne moo lay jàngal nooy julle nooy woore nooy joxe azaka nooy aje makk nooy takke sëy tabarakallahu nu ñuy jullee néew nu ñu koy sange tabarakalla nu ñuy miraasee di la jàngal itam commerce nuko ko ab jullit war defe ak yi melni mom moom xam-xam boobu moy ilmu zahir ndax li ci ëpp dafa jëm ci say cër ci cër yi moy li féete biti ilmul baatin nag moom la ñu tuddé at tasawuf mbiru xol la moy xam-xam bi nga xamné mom dafa bàyyi cër yi di wax xol bi ndax ku ne xam na ne xol ci jëmm doomu aadama dafa mel ni ab buur ci réew dooley buur ci réew la yor su ko defee nag yonent bi sallallahu alayhi wax na ko ci xadis nee na sinfaani min ummati ida saluxu saluxa annaas wa ida fasadu fasada annaas al umaraa wal fuqahaa ñaar a ngi ci sama xeet bu ñu baaxee xeet wi baax bu ñu bonee xeet wi bon ñu ne ko ñan la mu buur yi ak boroom xam-xam yi waaw ba ba tax na tey ni buur bi mel rek daanaka noonu la peuple bi mel waaw moo tax ñu ne sax peuple ñooy fay ñooy fal seen buur waaw da koy xool léegi ci Amérique waaw américains yi euh, comme racisme bañ doon nëbb tabaarakallaahu di ko fa nëbb gis nañ ne ko raciste ba mu ñëwee fal nañu ko kon nag peuple bu raciste lañu loolu moom tabaarakallaahu ki ñu fal dëggal na ko waaw mooy Trump moomu ñu fal tabarakallahu ak discours yu bon ya mu doon wax ak yépp teewul fal nañu ko parce que ñoom peuple mooy fal président kon ñaari na président ba mel rek noonu la peuple ba mel mu mel ni kon eh, xol itam na mu mel rek noonu la jëmm ja di mel ñu ne kon mbir mi du yittewoo li cër yi di jëf mais da ngay yittewoo xol bi ndax xol bi moo commandé cër yi tasawuf nag foofu la jëm waaw mu nga jëm ca xol ba ndax xam na ne xol bi ci boppam mooy baaxal cër yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko waaw nee na inna fil jasadi la mudra nee na am na benn suux bu nekk ci yaram suux boobu bu baaxee yaram wi baax bu bonee yaram wi bon ñu ne ko suux boobu lan la mu ne mooy def mooy xol xol boobu nag moo di at tasawuf mag ñi gis ne kon nit ki mën na jàng ba yey téere yi nee na waaye bu xolam defaruwul nee na njàngam du am njariñ ñu ne kon nag njàng nee na su ko yar ak teggin yarul lalul lu am njariñ ñu yitte woo nag yar xol ba lépp lu ciy tilim tilimu jikko ñu dindi ko lépp lu baax ñu def ko ca muy ilmul baatin bi tasawuf boobu la tuddee al ihsaan ñu xamal la ne la eh, lislaam wala jullit dafa séddalikoo ci ñetti cër am na jullit boo xam ne muslim la tudd ndax am na intérêt ci lislaam waaye taxul mu gëm lislaam mu tuub ngir intérêt boobu muy topp kooku kenn du ko tuddee mu'min kenn du ko tuddee muhsin muslim lanu koy tuddee léeg-léeg ngeen gis ko ci suñu mbokki tubaab yi bu ñu surtout tubaab yu jigéen yi walla yu góor yi sax eh, ku gis jullit boo bëgg surtout eh, góor ñi sax ñoo ci ëpp léeg nga gis góoru tubaab walla góoru katolik moo xam ne eh, ndaw si mu bëgg jullit la te bu duggul ci lislaam duñ ko ko may mu dugg ci lislaam ngir takk ndaw sax waaye dugg ci lislaam ngir gëm ngëm kooku mu muslim la waaw kooku muslim la ci lislaam rek la yem dana wax ashhadu an laa ilaha illa bu nit ñi dee julli mu julli bu nit ñi dee woor mu woor bu nit ñi dee joxe azaka mu joxe azaka mën naa aji sax màkk waaye protégé intérêt am moo tax waaye du ngëm gu nekk ci xolam kooku naa fex la waaw naa fex la muslim la waaye munaafiq la ñaareelu grade bi mooy mu'min mooy ki nga xam ne dafa gëm yàlla dafa gëm yàlla dëgg yàlla li muy julli yàlla tax li muy woor yàlla tax la muy joxe azaka yàlla tax waaye nag taxul xolam set nag ci yenn jikko yi léeg-léeg mu sàcc léeg-léeg euh, mu jëw léeg-léeg sax mu fen waaw waaye du tee rek mu'min gëm na yàlla waaye yooyu ay rëcc rëcc la ay bàkkaar la su dee muxsin nag moom moo tax nag tasawuf jóg mooy fexe ba ka nga xam ne jigéen a ko taxoon a tuub dugg ci lislaam ñu yar xolam ba mu xam yàlla ba mu xam ne yàlla gën sëy boobu muy protéger mu fa fàtte sëy ba te jël yàlla teg ci xolam dindi jigéen jooja génne ko ci xolam loolu tasawuf rek moom moo ko mën su ko defee nag tarbiya boobu moo koy génne jële ko ci darajay muslim indi ko ci darajay liimaan liimaan googu itam escalier la boo xam ne daf ko war a dépasser yéeg su ko defee tasawuf moo mën jële ko ci liimaan te mooy fexe ba dootul mooy ci yàlla fexe ba dindi mboolem jikko yi nga xamne ñokay galam ko te moy dan na fenn ñu fexe ba dootul fenati dan na añaan ñu fexe ba dindi kañaan ci xolam ku soxoron la ñu fexe ba def yërmande ci xolam ku nayon la ñu fexe ba def tabe ci xolam ku sàgganoon ci jaamu yàlla la ñu fexe ba ay cëram sàggan ci jaamu yàlla ndax daañu ko tarbiya ba xolam sopp yàlla bëgg yàlla sawar ci jaamu yàlla gis nga yonent bi sallallahu alayhi bi muy defal tarbiya Muaz ibnu Jabal def ne ko Muaz bul dañ di wax mukk ñaan gii ma lay wax te mooy na ngay wax naan yàlla ainni ala dhikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allahumma acinni ala dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik loolu mooy lan yonent bi daf ne Muaaz ibnu Jabal deel ñaan yàlla yàlla sawarloo say cër ci jaamu ko su ko defee ngay wax naan allahuma yow buur ain ni yàlla nga ma dimbali ala dikrika ci ma lay tudd wa shukrika te di la sant wa xusni ibadatika te di rafet itam rafetal itam nu ma lay jaamoo kon jaamu yàlla am na waaye rafetal jaamu yàlla nag ci tasawuf la gëne ndax tasawuf mooy tarbiye sa xol ba boo jógee di jaamu yàlla danga koy def ci anam ba gën a rafet moo tax bi ñu laajee lan moo di tasawuf ñu ne at tasawuf moo di ñu ne mooy lan ñu ne an taabuda allaha ka annaka taraahu waaw fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi gis yàlla ngir yar ak teggin ak teewlu waaw fa in lam takun taraahu bu fekkee nekkuloo di gis yàlla itam na nga xam ne fa innahu moom yàlla yaraaka mu lay gis waaw mu mel ni kon nag eh, an taabudullah ka annaka taraahu dafa am sew-sew bu fa nekk sew-sew bu moo di doomu aadama dafa am bëtu biti mooy ñaari bët yi muy xoole am bëtu biir moo di xolam bëtu biteem bii nga xam ne mooy ñaari bët yi muy xoole ci aalamu shahaada rekk la mën a jëfandikoo ba mën a gis lim war a gis waaye aalamul xayb mënu faa gis dara waaw aalamul xayb mënu fa gis dara su ko defee kon bët li mu mën a gis rek mooy li nekk ci diggante asamaan ak suuf moom loo fi teg rek bu dee bët bu baax mën na koo gis su fekkee silmaxawul bu dee nag la ca aalamul xayib kooku sa bëtu xol moo ko mën a gis waaw moo tax suñ borom di wax ne fa innahu la taamal absar walakin taamal qulub allati fi sudur yàlla joxul fayda importance bët bu silmaxa mu ngi jox importance xol bu silmaxa nee na ndax silmaxa xol moo gën a garaaw su ko defee nag sa xol tasawuf moo ko mën a defal tarbiya ba mu mën a gis nag aalamul xayib ba mën a sangu ci ma al xayib mën a sangu ca ma moo tax nag su fekkee danga yem rekk ci lislaam yem ci liimaan dangay ngay di nekk koo xam ne ci sharia rek ngay dund waaye nag soo bëggee sa xol ubbeeku fokk nga dund tasawuf te moo di al ihsan moo tax imam Junayd di wax ndax bayit bi dañ ne ibnul arabi moo ko taalif am ñu ne déedéet imamul Junayd di moo ko taalif te moo di tatahar bi maa il ghaybi in kunta za sirri wa illa kon defar sa xol ci wàllu tasawuf farata la fardu aynin la jëmm ju ne war na fexe ba xolam defaru ndax doomu aadama dafa am xel am xol am pëy suñ boroom jël li gën a ñàkk fayda ci doomu aadama mu féetale ko suuf moo di pëy mi ak biir bi dafa am xel am xol am biir am pëy xel mi nag ak xol bi ñoo mën a daj yàlla moo tax yàlla féetale leen kaw biir bi nag ak pëy mi dañu lay tàrdeel dañ lay gàllankoor ba doo mën a xam ci aalamul xayb dara tabaarakallaahu daañ ci ñëw daañ ci ñëw wane bànneexu bakkan ak bakkan xam ne dafa féetewoo ci ñaar yooyu du ñu mën a gàllankoore nit ak ni ci tasawuf di yëngoo mu melni dafa am kilifa guma mag wax imam Ghazali radiyallahu anhu neena xol buñu ko defarul neena nit ki ay jëfëm du mëna sel ba yàlla nangu ko ndax yàlla du nangu ci jëf yi lu dul la ca sell mu ne mu am juróom benn juróom ñaari e, jikko yu nga xam ne suñ boroom subhanahu wa juróom ñaari jikko yooyu maanaam su fekkee dafa nekk si jikko yàlla du la nangul ndax asamaan bu ne dafa def malaaka moo xam ne li muy surveiller ci say jëf mooy jikko boobule waaw li muy surveiller ci sa jëf moo di jikko su ko defee nag li ñu bëgg nag moo di sellal googu nga war a def ba nga xam ne jikko yooyu nga xam ne tey su fekkent ne malaaka yi ñu ngi surveiller say jëf su jikko yooyu yegsee ñu mën a tabaarakallaahu bàyyi jëf ji mu yéeg mu mel ni imaamul Ghazali radiyallahu anhu dafa wax ne asamaan yi juróom-ñaar la yàlla bind juróom ñaari malaaka yoo xam ne def leen aj ci asamaan yi ne leen na ngeen surveiller jëfe jaam yi képp ku nga xam ni jëf na lu baax su ñu ko yéegalee su ngeen vérifier gis ne sama jëmm rek a taxoon mu def ko na ko bàyyi mu dem su fekkente ne nag sama jëmm taxul na ngeen bloqué jëf ji mu yéeg mu jël jëf ju ñuy wax al ujbu muy naw jëf naw jëf mooy koo xam ne dafa yëg boppam ca la muy defal yàlla waaw yëg sa bopp ca la ngay defal yàlla képp ku nga xam ne jëf na lu baax su ñu ko yéegalee su ngeen vérifier gis ne sama jëmm rek a taxoon mu def ko na ngeen ko bàyyi mu dem su fekkente ne nag sama jëm mu taxul nangeen ngeen bloqué jëf ji bu mu yéeg mu jël jëf ju ñuy wax al ujbu muy naw jëf naw jëf mooy koo xam ne dafa yëg boppam ca la muy defal yàlla waaw yëg sa bopp ca la ngay defal yàlla muy jikko ju bon yàlla wut malaaka moo xam ne daf ko aj ci asamaan yi moom itam mu nekk ci benn ci asamaan yi su fekkee jaam bi dafa nekk ci kaw suuf daa di julli yëg ni moom kat jàmbaar la ndax jullil na yàlla yàlla da ko war a fay ci julli gi wala joxe na asaka ba yëg ci boppam que ne joxe na asaka ah, mel ni daf cay tiitaru daf cay yëg boppam su malaaka yee yéegalee jëf ju baax jooju ba mu agsi ci asamaan bi nga xam ne ca la malaaka yi naw jëf nekk daf koy daldi xool dossier yi su ko xoolee dana wax ne kii kat moom rekk laa doon xaar ci jëfam jile yëg naa ne da ca gis boppam naw ca boppam defu ko ngir yàlla kon nag naw ga ca naw boppam naw ca jëfam loola tax suñu boroom nanguwu ko kon du jëf ji bu mu yéeg nga nekk ci ko suuf foog ni loolu nga doon defal yàlla yàlla nangul na la ko fekk jikko boobu moo tax yàlla nanguwu ko mu di naw jëf muy jikko bu bon ñu tuddee ko al ujub su ko defee kooku yitam am na malaaka buy surveiller moo tax képp koo xam ne yaa ngi njulli walla ngay woor wala ngay def lu baax bu mucc ci lu baax le moo xam jàng alquran la walla azaka la wala tabaarakallahu eh, sa wayjur eh, ngay defal wala ngay def ci mbokk gi bu ko gis bu ko yëg ndax soo bu dee soo demee ba yëg ci sa bopp rek defatoo ko ngir yàlla waaw dafa ko ngir yàlla moo tax ñu ne même kii saraxe su tàllalee loxoom di sarax ka muy sarax bu ko saagaa bu delloo loxoom rek joxewul woon ngir yàlla waaw parce que joxe bi ngir yàlla la saaga bi nag leneen la waaw saaga bi leneen la fekkee ngir yàlla taxoon rek da koy joxe ka nga jox itam te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax lu jamono soppeeku soppeeku bul ne bu ko ñaax waaw ndax boo ko ñaaxee rek day mel ni li ko defaloon danga caa gis sa bopp te bu fekkee noonu la demee kon am na malaaka muy bloqué jëf jooju ba suñ boroom subhanahu wa du ko nangu te nag yàlla moom yaalamu xaainatal ayun wa ma tuxfi sudur yàlla xam na dëgg yàlla li dënn yi ëmb kenn ku ne la nga def xam na ngir jëmm ma tax wala ngir leneen am na malaaka bu boo xam ne mu ci asamaan yi li muy surveiller ci jëfi jaam yi moo di ak kañaan képp koo xam ne gis na ne kañaan mu ki sa xol kañaan googu tax na boo jullee ñu yéegal julli gi bu agsee ci malaaka mi nga xam ne yàlla da ko bind pour muy surveiller ak kañaan bu agsee dafay bloquer jëf ji bu ko waxee lutax do bayyi jëf ji mu mu ne ndax borom dafa añaan añaan gi ci xolam motax yalla du nangu koram du nangu julleem du nangu azakam du nangu benn jiw bu mu def amna malaka mo mu koy bloqué jëf joju du yéeg amna malaka mo moo mo ci euh, ko asamani ku ko xamni jikko reuy la yor mu ngi ci xolam momitam bu mu jullele bu julli gi yek su woré bu koor gi yek bu jangé alquran bu alquran gi yek nang ko bloqué malaka momitam sa bu julle bu ñu yegal julli gi mo koy bloqué kon buri nañu hamne. ñu ngi def lu baax nek ay julit Nek fi ci ko suuf di def lu baax li tax seen jëf yu baax yooyu yéegul ci seen jikko la ci seen xol la waaw xol boobu nag moo tax tasawuf jóg ndax tasawuf xam na ne nit ki julli du ko defar koor du ko defar azaka du ko defar aji màkk du ko defar ndax yooyu yëpp jëfi zahir la baatin bi moo ëpp solo mooy ndax xolam sell na bu xolam sellul rek dana bëri yu ñu bloqué ci kaw ndax am na malaaka moo xam ne malaaka ujubu la dafay bloqué képp kuy gis boppam ca la muy def diggante ma boromam képp koo xam ne kañaan nekk ci sa xol am na malaaka muy bloqué say jëf képp koo xam ne rëy nekk ci sa xol malaaka am na malaaka muy bloqué say jëf ñeenteelu malaaka mi moom yàlla da ko bind pour képp kuy jëw moom du bloqué jëf ji mais dafay jël jëw bi jox ko ña nga doon jëw waaw nga doon jëw moo tax ñu ne nit ki daal ñaari way juram rek la war a jëw nee na ngir ñu jël ay rafet rafetam dégg nga di ko jox ay way juram waaye julli ba pare ak nit yaa bay julli rëyee nga woor ak nit yaa bay koor woo rëyee nga xam ne koor yàlla nee na moo koy fayal boppam waxaat ne asaw mu junna ak yi ci nekk ci eh, tabaarkal la ngëneel yépp eh, ñu yéegal ko ba ci kaw malaaka a jël ko ne ah, diw e, diw mala day waa ji jëw na ko tey ci bëccëg bi kon nag jox jox leen ko koor gi nga dem ba yomal xiyaam taxaw di xaar yàlla fay la yàlla ne la sa koor ga kat fay neen ko diw sàngam ndax jëw nga ko ci biir sàngam diw sàngam ndax jëw ko ci bis sàngam ba daanaka dootoo deseti ci dara ci yiw ndax koor yaa julli yaag jàng alquran yaag azaka yaag yëpp tabarakallahu faye nanu ko euh, tabarakallah ña nga doon jëw euh, ñu def ci benn mulaaxada ndax wax nanu ne asawmu lii wa ana ajizi bihi ya yàlla di fay ay aq koor bokk ja loolu nag ngëneelu koor la kon nag yàlla mën na fay julli ya mën na fayee jàng alquran ya mën na fayee saraxa ya waaye koor nag moom kenn du ko fayee ay àq ndax yàlla moo ko téyel boppam loolu moo tax koor moom képp koo xam ne feebar nga sax ba mënatuloo woor ñu ne la day génnee sarax ndax sarax boobu nekk sa koor ndax koor buntu la boo xam ne yàlla def cay jaarale ñu bari pour musal leen waaye nag ñu def très attention rek ci ni kiy jëw moom duñu bloqué ay jëfam mais dañu koy faye yeneeni i jaam mooy jaam yum doon jëw su fekkee nag koor gala moom dañ koy bloqué du yéeg yàlla du ko nangu koor ya yàlla di fay moom du ko gis ndax dañ koy bloqué tabaarakallaahu xam nga su dee ne euh, ñeenteelu euh, juróomeelu malaaka bi la moom suñ borom subhanahu wa taala daf ko bind pour ñi nga xam ne dañuy njëstal muy bloqué seen jëf kon boo jëlee misaal ne premier asamaan malaaka yi naw jëf deuxième asamaan malaakam kañaan troisième asamaan malaakam rëy quatrième asamaan malaakam jëw cinquième asamaan mooy malaakam njëstal nga xamne dañuy ngissal ñom itam su fekke julli gi nit ñe taxone nga koy def koor gi nit ñe taxone nga koy def azaka ji nit ñe taxone nga koy def jang alquran bi ngay jang alquran sax yow iliman bi di neexal sa baat tabarakallah pour nit ñi ne sa baat neex na fekkee ngista la taxone ne la leer ne julli gi dana yek waye bu agsee ci asamaan si malaakam njistal nekk bu xoolee moom dana am signe bu koy wanne ne julligale kat boroom da doon njistal ñu bloqué julliga du yéeg wala ñu bloqué tabaarakallaahu koor ga du yéeg wala ñu bloqué azaka ja du yéeg kon njistal baaxul suñ boroom subhanahu wa وخناكو نملو نافق لا يراؤون الناس ولا يذكر ولا يذكرون الله الا قليلا في سوره النساء ايه 142 موتاخ سي بروم سبحانه وتعالى ترينا نجستال داخ مودي الشرك الاصغر يونتي صلى الله عليه وسلم دون ندفل تربيه معاذ من جبل داخ يونتي بي بغون معاذ waaw ah. ne ko yaa Muaaz mu ne ko labbayk yaa rasulallah mu ne ko ixdar an yura fiika aathaar almuxsinin wa anta taxlu min dalika fa tuxshara maa almuraayin mu ne ko yow Muaaz ixdar mooy tandiko an yura ba gisee fiika ci yow aathaar almuxsinin ne na jeexitalu ñay def lu rafet ba ñu foog ne yow mii kat ab waliyu nga nit ku baax nga ndax gis nañu ne yaa ngi def jëfi nit ñu baax ñi wa anta taxlu min dalik te loolu ñu foog ci yow nekkul ngistar rekk a taxoon tabaarakallaahu nga yor melokaan boobu waaye melokaan bi dëgguwul ci yow nee su ko defee nag fa tuxchar dee fi la pang ëlëk ma al muraina ngay dekki di ànd ak ñi ngistal waaw ndax eh, dañu wax ne eh, nit ku ne eh, maanaam fa nga bokk na nga meloon fii soo génnee àdduna nee na nit ñi dekki ci bàmmeel yi ah ca groupe boobu nga jëm mhm. nee na wa qiila law anna rajulan amila amalan min albirri fa katamahu summa ahaba an yaclama annaasu annahu katamahu fa huwa min aqbaxi riya leneen sax su fekkee nit ki dafay def lu baax di ko nëbb waaye nëbb ga sax nëbbu njëstal la maanaam dafa bëgg ñu naan ah waa ji day làqatu waaye wëliyu la waaw fekk làqatu googu la nga ca namm rek pour say daraja gën a yëkkatiku ci nit ñi waaye laqatuwoo sax ngir yàlla waaw laqatuwoo ngir daw njëstal waaye danga laqatu ngir bëgg njëstal nee na fa huwa googu mu laqatu min aqbaxir riya waxuñu ne njëstal la waaye dañ ne mooy njëstal bi gën a bon te daanaka léeg-léeg ñiy dund tasawuf nga gis ci ñu mel noonu gis waajo randamtal baat tabaarakallaahu di yiw yiwlu eh, la eh, di xooge xoogelu eh, di yaru yarulu waaw mel ni dafa yor melo wëliyu dégg nga wala nga gis ci koo xam ne tabarkalla da ngay foog ne la muy def naan day nëbbatu waaw ji day nëbbatu fekk dara nëbbatu googu yëpp nëbbatu ngissal la te ngissal googu moo gën a bon su ko defee nag tasawuf mooy ñëw pour fexe ba ngistal mu dindi ko ci sa xol bala mu doon yàq ci sa xol dootu ko yàqati loolu tasawuf rekk ko mën loolu la tuddee tarbiya waxuñu nag tasawuf bi ñu gis léegi ndax eh, lislaam am na waaye da gis lislaam bu yàqu te mooy lan gis ngeen fii ñu naan eh, bëri na ñuy mbubboo lislaam te duñu ay jullit kooku lislaam bu yàqu la waaye bëri na koy mbubboo tasawuf itam te du mu sawi eh, te du mu tasawif kon nag su ñu ko jëlee noonu rek tabaarakallaahu ah mu rafet ndax lu ñu fi samp rek dana am ñu ca dugg ba yàqu ko waaw ah, da ngay dégg ah, bi day léegi am na ñoo xam ne ñu ngi koy def mais du ñu ay politicien waaw ah, tabaarakallaahu eh, gis ñoo xam ne sax ci wàllu pom yi dañ naan la bëri nañuy def musique te duñu musicien waaw dañ koy dañu yàq aar bi tabaarakalla ah tasawuf itam noonu la rek waaw ni ngay gisee ne terroriste yi ñuy wax ne dañuy mbubboo lislaam te duñu ay jullit noonu itam ngay gisee ci wàllu tasawuf ñoo xam ne ñoom itam dañuy mbubboo tasawuf te doonuñu ko ñooñu di mbubboo tasawuf nag imaamu Malik wax na ci ñoom daañ ci yegsi incha allah moo tax ngistal lu jara moytu la jële neen ci shadaad dubnu aws radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wax na ne إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر نين لي مغنا راغال تي يين لي نيو تودي بوكالي غو نداو قالوا صحابين كو وما الشرك الأصغر لن مودي بوكالي غو نداو يا رسول الله موني الرياء مودي نيستر نيستر نك لو سيول لو سيول لو خامني موتي تي جافنا موتي تي جافنا sax yoon si daan digle ne même boo dee saraxe nee na na fexe ba bu ndeyjoor bi day joxe bu ko càmmoñ bi yëg waaw ndax ca ndeyjoor la ñu taamu ci muy joxe ndax mooy yar waaw kon nag bu ndeyjoor day joxe bu ko càmmoñ yëg su fekkee càmmoñaa nag ndeyjoor di seexam te la ndeyjoor di joxe yëgu ko lañ ca namm rek mooy na nga góor góorlu ba lépp looy def rek na yàlla tax lu la nit jege jege jege jege nanga fexe ba boo xamee rek dafa fekk ne mënul woon a ñàkk xam la ngay def te yàlla tax tabaarakallaahu ba tax na kon njistal am na malaaka moo xam ne eh, mooy surveiller képp ku njistal bu lu mu tuuti tuuti bu nekkee ci sa jëf mu nga ci asamaan ya bu jëf ja yegsee daf koy bloqué du dem am na malaaka moo xam ne yàlla da ko bind yóbbu ko ci asamaan benn ci asamaan benn mu nekk ci asamaanu juróom benn wala asamaanu juróom ñaar wala premier asamaan wala deuxième asamaan waaye daal malaaka la moo xam ne yàlla bind na ko yóbbu ko ci kaw asamaan yi lu muy surveiller mooy e, ñi ñàkk yërmande ci jaamu yàlla yi ñàkk yërmande nit ku soxor ni xol ba dafa bon amul yërmande waaw waaw amul yërmande te dafa dafa ci nit ñi ñoo xam ne tey eh, buñ la tanee ci wërsëg duñ la dimbali mukk ndax ñàkk yërmande waaw buñ la gisoon eh, ngay sonn waaw duñ la xool sax dañ lay romb jàll tabaarkallaahu social amuñ ci dara ndax ñàkk yërmande buñ la jekkoo gaañ la waaw bu ci policiers yi ci kaso yi tabaarkallaahu ak prisonniers ya fa nekk am na ci ñoo xam ne léeg-léeg nga gis seen xol wow ba ñuy dóoree du ñu yëg ne sax ki ñuy dóor dafay yëg mettit tabaarakallaahu ba ci sëriñ si jàngale ci daara yi léeg-léeg nga gis leen ñu dóor xale ba gaañ ko gaañ bu metti ngir ñàkk yërmande tabaarakallaahu ba ci agresseur yi taarkal la wéet ak koo xam ne wax dëgg yàlla defu la dara soxla alalam rekk a tax wallaay nga ñàkk yërmande ci moom rey ko wala nga gaañ ko gaañ bu metti nangu alalam dem waaw ñooñu nag léeg-léeg seen xel jëm ci yàlla ñu julli wala ñu woor wala ñu joxe azaka wala ñu def lu baax lu baax loolu buy agsee ci asamaan boobu nga xam ne malaaka ma ma fa yàlla teg moom la muy xool mooy ki jëf-jëf ci ndax am na yërmande ci jaamu yàlla yi wala déet su fekkee amul yërmande ci jaamu yàlla yi yàlla dafay malaaka mi dafay daal di bloqué jëf jooju du dem kon bi juróom-ñaareel mooy euh, malaaka mi nga xam ne moom itam yàlla da ko bind pour muy surveiller maanaam euh, ku rëy ku rëy ku bëgg daraja waaw na ñoo xam ne dañoo dañoo bëgg daraja waaw tabaarakallahu ñoom daal ku ñu àndal dañ la bëgg di féete kaw rek te nanguwuñu kenn féetewal féete leen kaw boo leen féete kaw ñu añaane la di la fexeel ba nga wàcc wala ñu yàqal la tabaarakallahu ba nga yàqule waaw ngir rek eh, soxor ak bëgg rëy ak rëy ak tabaarakallahu bëgg àdduna waaw rëy bëgg àdduna su ko defee nag malaaka moom itam foofa lay toog képp koo xam ne rëy a ngi ci sa xol soo jullee walla nga woor malaaka mi bu af e, dossier bi yegsee ci moom daf koy bloqué du yéeg su ko defee nag tasawuf mooy fexe ba dindi naw jëf ci yow mooy alxujb moo koy opéré ci sa xol defal la tarbiya bu mu dañ dindi ci yow kañaan dindi ci yow rëy dindi ci yow e, tabarakallahu salaam sawar ngay jëw nit ñi dindi ci yow kañ eh, eh, ni ñuy tuddee eh, njistal dindi ci yow ñàkk yërmande mooy xol bu wow dindi ci yow li ñuy tuddee rëy waaw su ko defee nag su tasawufu dindee lii ci yaw nag lépp loo defal la te yàlla rek day mën a yéeg ndax su fekkee romb na malaaka naw jëf bu gisee naa waa ji nawul boppam ca la mu jëfal yàlla mu jàll ci malaakam añaan mu xool ko ne ah gisuma ci kañaan kon na dossier bi dem mu romb tabaarakallaa rëy mu ne ah kon nag kii itam e, gisuma ci rëy kon na jàll mu romb e, jëw mu ne jisuma ci jëw na jàll jëwul kenn ku tee làmmiñam la mu romb njistal mu ne yàllaa taxoon muy def njistal amu ci mu romb tabaarakallaahu borom xol bu baax te bëri yërmande mu ne jisuma ci xol bu bon ku bari yërmande la ci jaamu yàlla yi mu romb dégg nga malaakam tabaarkàlla eh, bëgg daraja bëgg daraja bëgg daraja ak rëy nag bokkul ba li rëy la bii nag bëgg daraja la te bëgg daraja nag ak rëy sorewuñu waaw sorewuñu ndax ki bëgg daraja ñaare mooy ki rëy su ko defee moom itam bu xoolee gisu ci bëgg daraja waaw Maam Alaaji Mansuur moo daan wax ne eh, ñaar daal tollorewu ko nee na mag muy fen nee na ak gone bu bëgg daraja waaw kon nag bëgg dara ji ci gone sax la gën a bone tabarkàlla ci gone la gën a bone su ko defee nag yii yëpp bu ñu ko surveiller gisuñu ko e, gisuñu ci benn ayib ci ayib yii ci la sa jëf nag di soog a yéeg kon nit warul wax mukk ni maa ngi julli sama affaire baax na yow mal déedéet maa ngi woor sama affaire baax na yow mal xiyaam yow yaa ngi ci jëfi zaahir yi waaye nag gàllankooru baatin yi mooy jàngoro yii nga xam ni moo nekk ci sa biir te dañul bëri na koo xam ne yàlla nanguwulu ko dara parce que naw jëfa tax bari na koo xam ne kañaan a na koo xam ne tax bëri na koo xam ne jëw yu bari moo tax bari na koo xam ne njistal bari na koo xam ne soxor ñàkk yërmande bëri na koo xam ne bëgg dara ja tabarkàlla moo tax nga gis sax ci wàllu kañaan يعني صلى الله عليه وسلم دي وقتنا إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب من موي تولين كنيان ناخ كنيان داي ياق سين جيف يو رافيت كوم ني سفارا دي لاكي مات بامو دون دوم موتاخ ا سو فكنتني نك ني ديلو نين لين سين جيف واخنا نو ني دي ساني سين جيف يوي سي سين نلين يالا سوخلو kon nag lii tax nag sa jëf nangu tasawuf rek moo la mën a dimbali waaw alquran nag dëggal na yu bari ci wàllu kañaan boo demee watlu alayhim naba nay aadam بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين مائدة aya 27 يالا neena euh ku añaan duma ko nangul ki may nangul moy ki ragal yalla kon nak ki añaan bokul ci ñu ragal ري باخول ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور يالا نينا بغوما كو ري تي تيترو موك كون نك كي يالا بغول دوكو نانغول دارا لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين mu ngoog mu baamtuwaat ko foofu ci suratu naxl aya 23 inna alladina kazabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftaxu lahum abwaabu alsama wala yadxuluuna aljannata xata yalija aljamalu fi sammi alxiyaat wa kadalika najzi almujrimin laaraaf aya 40 suñ borom subhanahu wa taala ŋàññi na rëy bëggul ñi rëy suñ borom subhanahu wa taala bëggul ñi tiitaru kon nak jikko yi nga xamne ay jikko yu bon la ay gàllankoor la tasawuf nak mo ñew nak pour mëna défar defar xol bi ba lo liggéeyal yalla rek yalla nangu motax imam malik suñu sëriñ bu baax ba daan na wax ne képp koo xam ne jàng na ba ne ar sharia ba géeju nee na te defarul xolam nee na faasix rek la mën a doon wa man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafassaqa waaw nee na ndax su fekkee jikko yi mu ngi ci sa xol jàng nga ba ne ar yaa ngi jëfe la ngay jàng waaye kañaa nang ci sa xol rëy ngi ci sa xol dégg nga naw jëf ngi ci sa xol njistali nga ci sa xol soxor mu ki sa xol nee na loolooy tax nee na génn topp googu mooy tax ñu bloqué say jëf ba doo mën a yegg ci yàlla kon nag képp koo xam ne dégg na fiq jàng na ba xam shariaam te mooy ilmul zahir bi na góor góorlu ba dugg ci ilmul baatin ndax xolam baax kon tasawuf mënul ñàkk fardu mu ne wante nag waman tasawwafa walam yatafaqa foofu la problème bi itam nekk ndax am na ñoo xam ne dañuy tëb rek bëgg a wax ne ñoom soxlawuñ ci alxuraan dara soxlawuñ ci xadis dara duñu jàng benn téere fiq ngir dégg diine ñoom daal seen xor rafet na duñu sàcc nawuñu seen jëf ñu am yar leen am yu teggin eh, dégg nga maam Eh, seen xol daal baax na yéene na ñépp jàmm waaye nag daal lu jëm ci julli woor joxe azaka yooyu daal nga xam ne ay mbiru sharia leen ñoom seen yoon nekku ci ñoom daal yëg nañu daal ne ñoom daal seen diggante ak yàlla daal seen xol rafet na ci rafet goo xamante ni duñu def dara lu bon duñu sàcc duñu naan sàngara duñu njaalo duñu def lu bon mais nag mbiru dégg nga jaamu yàlla daal ak mbiru sharia seen yoon nekku ci imaamu Malik nee nag képp koo xam ne dugg na ci tasawuf boobu ba tax mu neenal sharia ne du julli du woor du joxe azaka nee na kooku zindiix la zindiix nag mooy naafiq bi gën a bon ci naafiq yi imaam Malik ne kon nag waman jamaa baynahuma képp koo xam ne boole na tasawuf ak fiqhu te mooy ilmu zahiri ak ilmul batin bi maanaa boole nga jàng sa sharia ba xam ko nga xam ne bu sa julli yàqoo mën nga ko defar tabaarakallaahu xam nga naka la ñuy laabe xam nga tahaaratul xadas tahaaratul xabas dégg nga xam nga nu ñuy sangoo farata sa sharia saytu nga ko ba xam nga tabaarakallaahu li xaraam ak li dagan dégg nga muy ilmu zahir bi ba pare itam nga defar sa xol ba kañaan nekku ca rëy nekku ca naw jëf nekku ca soxor nekku ca rambaaj nekku ca jiw nekku ca jikko yu bon yooyu dara amu ca mu ne boo boolee nag ñaari xam-xam yooyu mu ne faqat taxaqaqa kooku mooy ki nga xam ne dund na xaqiqa dëgg-dëgg mooy ki nga xam ni mooy waliyu yàlla pur kon nag waliyu yàlla piir mënuñu ko nangu ci jàng sharia rek waliyu yàlla pur mënuñu ko nangu ci dund tasawuf rek waliyu yàlla ñu ngi nangoo ci jàng sa sharia saytu ko ba xam ko dégg nga yar sa xol ba nga xam ni di koy ji koy caay-caay yi nekku ci su boobaa nag ci ngay soog a bokk nag ci arbabul xaqaayiq ñu boole la ci ñi nga xam ni dëgg yàlla ñoo xam yàlla yàlla kenn du ko xam waaye nag ñooy wàllu yi nga xam ni jege nañu yàlla ngir seen jikko yu rafet mu mel ni tasawuf suñu mag ñu baax ñi dañ cee wax ndax soo demee ci taiyatu suluuk moom indi na ci ay leeral indi na ci ay leeral moom taxiyatu suluk ndax أن طريق الصوفية واعلم أن طريق الصوفية هي طريق الأبرار ولم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها من يعلم نعم، ان الطريقة الصوفيه نيكي يعني طريق الصوفيه بني وخ موي صوفيزمو هي طريق الابرار مو يونو نينا غورو يالا ولم تزل مسل دنج موم تصوف تموي سوفيزمو عند سلف الأمة نانا تي سنو مك نيو باخ نيوي وكبارها اكسين مك من الصحابة تي صحابة يكون تصوف بي نيو باخ صحابة يدنك دون دوندو والتابعين ني توب تي صحابة يتم دنك دوندو كون ني دون دوندو يونتي بي ني تودي لين اي صحابة دوندو نانو تصوف اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم taabiin yi itam dund nañ ko waman baadahum ak ñi ci seen ginnaaw ñoom daal mosuñoo dañ di jàpp ne tasawuf mooy tariqatal xaq mooy yoonu dëgg bi nga xam ne ci la nit di defaroo te mooy lan tarbiya bi nit di def xolam ba nga xamante ni jikkoo caay-caay yooyu dana ca dañ nee na wa asluha cosaanu tasawuf al uqufu an al ibada dappatiku ci jaamu yàlla caay-caay yooyu dana ca dañ nee na wa asluha cosaanu tasawuf al ukufu an al ibada mooy dappatiku ci jaamu yàlla bañ caa jóg sëgg ci jaamu yàlla rek bañ a siggi wal inqitaau ilallaahi nee na ak dog lépp du dul yàlla jëm ci yàlla wal iraadu an zuxrufi dunia nee na ak du mooyu nee na poñetum àdduna wazinatiha nee na dégg nga ak taaru àdduna lépp luy àdduna nga won ko gannaaw fa lamma fasha al iqbaalu fi l qurun wa ma baadahu bi nga xamante ni nee na ci deuxième siècle gannaaw yonent bi sallallahu alayhi ci alqarnu thani nit ñi nee na tëb nañu rek wuti àdduna nee na jamaa annaasu ila muxaalatati dunia wa janaxa annaasu ila muxaalatati dunia nit ñi daal di jëng nag jëm ci jaxasook àdduna nee na nag foofu ixtasa almuqbiluuna ala alibadati bismi suufiya bi nga xamante ni yonent bi jóge na fi ci ñaareelu siècle ba gannaaw yonent bi sallallahu alayhi ñu tuddee leen alqarnu thaani wa ma baadahu ak la ca gannaawam ñi ëpp ci jullit ñi dañu dawoon wuti àdduna ak poñetu àdduna foofa nag la tasawuf gën a feeñee ndax ñu bari itam ci saxaaba yi ci tabarakalla eh, eh, nu mu tëdd jullit ñi ñoom dañu jug nee na daal di tuddee seen bopp as suufiyoon بيغا خمينتيني فلما كتبت العلوم ودوبنت وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والتوحيد والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه الطائفة في طريقتهم بيغا خمينتيني تم أمن نجوب بند تي أي برامي خم خم بند تي فقه بند تي أصول بند تي توحيد بند تي تفسير نينا ci la itam ñun kuréel bii nga xam ne ñooy sufiyanke yi ñoom itam ci la ñu jóg bind ay téere ci yoon wi nga xam ne ci la ñu sóobu muy yoonu tasawuf fa minhum man kataba fi ahkaamil wara am na ci ñoom ci sufiyanke yooyu ñoo xam ne dañoo bind ci at attey sàmm nu nit war a mën a sàmmee bëtam bu du xool xaraam sàmm loxoom ba du sàcc te du ca lor doomu aadama sàmm tànkam ba du dox lu bon sàmm biiram ba di ci ba du ci dugal lu xaraam du lekk alalu jirim de du lekk alalu nit ñi bi xëyri tibi nafs ñoom ñu bind ci warax boobu wa muhaasabati nafs fi l axdi wa ñu bind itam ci nit naka la mën a régler bàkkanam ci li mu war jël ak li mu war a bàyyi wa minhum man في آداب الطريق أم نيو خامني بيند نولو سي تيغينو يون وي يان لا يون وي لاج سي ديغنتي نيت كي اك ومنهم من جمع بين ذلك أم نيو خامني دانيو بولي بيند سي لول ليب سيني تيري دينغ وهذا العلم هو علم الوراثه المشار اليه بخبر xam-xam bi nak mom lañu tuddé ilmul wiraasa moy xam-xam bo xamné xam-xamu ndono la nga xamné mom la yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di junj ci hadith bi lu yonnati bi wax man amila bima alima warathahu allah ilma ma lam ya'lam képp ko xamné la nga jàng danga ko jëfe bi maana ki nga xamné dafa jàng shariaam ba mu jeex mu nangoo jëfe sharia boobu yàlla dana ko dimbale nag orienté ko ci xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf te mooy defar xolam ba lu mu def yàlla nangu ko waaw moo tax képp koo xam ne eh, tabarkàlla suubu nga ci yoon wi daañu la wax ne ba mu jàngee ba noppi ci la commencé nag di wër góoru yàlla yi si Cheikh Tijaani radiyallahu taala anhu wax ne ni bi mu amé ñaar fukki at ak ben ci lepp lu ñuy jang ci téré jang nako tabarakallahu ba xam ko saytu ko saytu bu wér moom seyd chamada tijani ci la jog nak ne léegi dal diko déssé muy dugg ci tasawuf ndax bëgg na nek góoru yalla ci la yu nak di wër góoru yalla yi kenn par kenn ba yegsi fi mu ci yegsi boo demee ci jawaahirul maani dana la wax sëriñ yi mu jaar yépp tabaarakallaahu te kum sukk ci sa ëtt wutu fa ludul rek tabaarakallaahu defaw fa ca wàllu yàlla duy ca leeru yàlla ya ba fees ca dell loolu moo doon yitteem moo tax nga gis euh, ku mel ni euh, tabaarakallaahu euh, xaadima jaxate kala ba mu ca tollo moom itam nga xamne dem na ba nek qadi commencé moom itam di wër waaw ci lay ci lay indi am bobu wa man li bi ustazin aluzu bi irdihi yaqini yaqinan kulla hawl bi mawridi tabaarakallahu tabaarakallahu mu melni so day xol ku melni nii bu mag ba ni qadi ma jaxate kala nga xamne ba mu tolloo ci ilmu zahir peeg na lépp lu di sharia ba ñu xëy tuddee ko qaadi muy atte atte yu wér senegal nangul ko Mauritanie nangul ko waaye moom yëg na ne ilmu zahir boobu rekk te moo di alfiqu di di al sharia bu ci yemee du xam yàlla mukk xanaa ku réyee ni moom may di xaadima jaxate ka nga xam ne mag ñu bari jàngal na leen sëriñ su bari ñu leen di naw fii ci réew mi jaar nañu ci loxoom moom xaadima jaxate kala mu jékki-jékki yëg ni xam-xam bi bari na tabaarakallaahu wante am na lu mu dese te mooy ilmul baatin fokk mu am euh, sëriñ boo xam ne mat na sëriñ waxuñu nag sëriñ niñ koy tànnee fii ci senegal sëriñ moom li ñu wax rek dëmm ka nga yàpp sëriñ ka la soob waaw ka nga bëgg daal mën nga ni mooy sa sëriñ moo tax doomu sëriñ bi maanaam sëriñ bi boo amee ay doom taalibe yi commencé seddoo doom ya waaw ku ne naa ah, man daal diw ci moom laa jébbalu kii diw ci moom laa jébbalu loolu nag eh, du ak sëriñ sëriñ danga koy tànn sëriñ danga koy tànn tabaarakallaahu ndax Seyd Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu amoon na ay doom waaye gis ngeen ne muqaddama mi ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon yoon wi ñu ay compagnons de lutte am gis ngeen ne kenn ku ci nekk rek macha allahu la topp ca mbooloo kenn xamul na mu toll lu tax ndax kenn ku ne danga seet ca ña toppoon si Seydi Ahmad Tijaani te yàlla tax topp ga jural leen ay may yu rëy nga xeeñtu may yooya ca ñoom topp leen ngir mën ca am nga gis ku mel ni sayidi Mouhamad al Ghali nga gis ne ci moom la sayid Cheikh Omar Fouti jële bokkoon na ci muqaddam yi àndoon ak sayid Cheikh Ahmad Tijani radiallahu taala anhu te ci xalifaam yi gën a rëy ci la bokk bokk ci ñu ko donn tabarakallahu te cheikh juru ko kon mbir mi kenn du ko xool ci deret déedéet boo ko xoolee ci deret rek doo dem senegal nag ñoom ci deret la ñuy toppe mën nga toppe sax ci deret waaye dafay fekk ne danga xool xaqiiqa ba noppi su ko defee soog a xool deret loolu ayul waaye bu nee ne deret kese ngay topp li nga topp amul njariñ moo tax euh, xadima jaxate kala jóg pour wut sëriñ bu mat sëriñ mu joy ko ca wayam wa wax ni waman lii bi ustaazin aluuzu bi wirdihi yaqiini yaqiinan kulla hawlin bi mawridi mu ne waman lii ngelawaay fu may jële bi ustaazin cib sëriñ waaw sëriñ boo xam ne aluusu danaa mën a wéeru bi wér wirdihi ci werdam mu jox ma ko jox ma ci ndigal su ko defee yaqiin yi mu mën ma fegal yaqiinan ci lu wér kulla hawlin bépp tiit waaw xam nga ku day ni xawdima jaxateka la ak xam-xamam bu rëy su fekkee mooy wut kilifa nga xam ne kon wut kilifa fardu aynin la waaw te la ko ko may nag mooy jëfe la mu jàng soo jëfee la nga jàng fokk nga soxla ilmul wiraasa te ilmul wiraasa itam na la leer na yàlla sànniwu ko dafa am ci loxo yum ko teg loxo yooyu nag loxo yu jafee gis la Seyd Cheikh wax na ko ci jawahirul maani nee na gorsoo suñuy wër te mooy kilifa gu mat kilifa te yegg ca yàlla nee na pour sa nagu bët tege tege ca dana jafe ndax yombatul segam yombul woon ci jamono yu njëkk yi rawatina ci suñ jamono bi waaw am na fu ko Sëñ waxe nee ñu bari ci kilifa yi ñuy topp léegi jàppe leen ay kilifa nee na ay tëj fal lanu ay fiir lanu ay fiir lanu alal rek lañuy wut waaye nag léegi sëriñ ak taalibe daanaka dañuy naxante taalibe bi dafay bëgg nax nit ñi ci turu sëriñam pour tedd sëriñ bi di nax tabarkàlla taalibe yi eh, ci turu ay waajuram moom itam pour bëgg a tedd waaye nag ah eh, ko xam ñu yar la nga am yitte eh, tabaarakallaahu du fu nit ñu jaar rek nga jaar fa waaw yow da nga xam li xew xam itam la nga bëgg xam itam na koy wute moo tax képp koo xam ne sëriñ si nga xam ne sëriñu jamono la lañu ku leen gis ak seeni melokaan jéppi leen ba tax nga fook ne mag ñi fi jaaroon noonu la nu mel juum nga waaw juum nga tabaarakallaahu te nag mag ñu ba léegi seeni jeexitalan fi soo defee yitte mën nga leen daj soo seetloo bu baax rek mën nga leen daj si Hajj Malik si wax na ko nee na liggéey njëkk a xool boo dee wut ab sëriñ mooy xoolal shari'am ba noppi waaw xoolal shari'am ba noppi ndax balaa julli jàpp waaw xoolal na muy duggee wanag waaw ndax am na ñoo xam dañuy dugg woon ak rek génn arkal duñu ferlu ferlu bu baax waaw ci la doon waxee ne na ngeen mooy tuddi saw ci jàkka yi waaw ndax ngóor du dugg ci wan ak rek génn waaw am na nooy ferloo waaw su ko defee noonu ngay toppee sa sëriñ ba xam ndax sharia mat na ilmu zahiram ndax mat na ndax ilmu zahir bu matul batin du mën a dëgër tabarakallahu ba tax na tasawuf foofu rek la tëdd moo tax ñu wax ne eh, usulul qawm bu fekkee eh, cosaanu nit ñi lañu ñu jàppee cosaan ci tasawuf mooy tasawuf la muy fa muy njëkk a tege comme ni ko imam Shaaraani waxe mooy mu tasawuf bi dafay fonk alquran alquran gënal ko lépp loolu mooy cosaan bu njëkk bi ci tasawuf kon képp ku lay wax ni dafay dund soufisme bëgg a doyadal alquran dundul soufisme soufisme cheytaani lay dund ndax soufisme cheytaani am na mooy bu induyeeg yi niroog moom waaye soufisme bi nga xam ne mooy ab tasawuful islaam yi alquran moo ci jiitu waaw néegu soufisme néegu tasawuf bañ koy tabax fondement ba alquran la moom la imam Chaaraani wax moo tax kon nag fokk nga xam ci sëriñ bu mat sëriñ Xaadima Jaxate Kala nag daaliyaam booba ba mu ko toppee di jooy fan lay jëriñ lay jële sëriñ bu mat sëriñ wëral na bëtam xool na fu nekk sharqan wa garban waaw e, shimalan wa januban xool na fu ne waaye gisul ku ëppi may Seyd Cheikh Ahmad radiallahu taala anhu waaw mu ne gis naa ci moom ñetti tedd gis naa ci moom tedd ngay xam-xam ndax gis naa ni muy toje masala yi waaw Seyd soo jàngee jawahirul maani xam ne mooy fóorey fóorey ji ci ni mu déggee alquran tabaarakallaahu lu masala xóot xóot da gis ni koy tase ak ni muy leere macha allah moo tax eh, ku xam rek moo mën a xam ki xam sëñ Babacar Si boo masaana ñëw ni ko diw dey nee nanu boroom xam-xam la mu ne ah, ndax boroom xam-xam yaa ko wax mu ko ndax borom xam-xam yaa ko wax su fekkee ña wax ne boromi xam-xam leen du ñu ay boromi xam-xam kon xam-xamam dëgguwul waaye qaadi ma jaxate kala moom moo wax ni gis na ci Seyd Cheikh Ahmad Tijaani nee na tedd ngay xam-xam ndax ni muy tojem masala yi gisul nee na ci kaw suuf kuy leerale noonu alquran ak xadis nee gis na ci moom te da ngay diine nee na ndax ni mu respecté sharia ak ni muy jaamoo yàlla ak ni mu ci amee dogu ak yitti nee gisul ku ci mel ni moom loolu defe naa abi chamaroon seedeel na ko loolu tabarakallahu fa ko maamam joxe mbir ma seedeel na ko jaamu yàlla yu rëy ya mu fa doon def ci xazm ak azm xadima jaxate kala nee na am na itam nee na tedd ngay deret ñu ne ko lu tax mu ne ndax askanu askan wu wér wi mu am ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ndax yonent bi moo ne Sayid Cheikh anta waladi xaqan anta waladi xaqan anta waladi xaqan ndax cheikh musul gëm maanaam mbiru diw shérif la musu gëm li mu gëm rek mooy moom dafa jàpp ne li mu war a am da ko war a am ci mérite waaw waabud rabbaka xata yatiyaka al yaqin waaye tegu ko ci deret ku fonkoon itam njabootu yonent bi la sallallahu leen daan màggal la ku leen daan caral la te di leen jox hadiya tabaarakallaahu taalubeem sax daan na jóg bëgg a jël soxna ci waa kër yonent bi da ko daan tere ngir ragal rek mu gaañoo ca moom Seyd Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu Qaadima Jaxate Kala radiallahu anhu nee tàllal naa Seyd Cheikh sama loxo bokk ca tariqaam nee na ndax gis naa ne moom dong moo ma mën a yilif ci moom rek laa xañ waaw kon nag su fekkee ne kooku moo mën a mën a wut kilifa te ba muy tànn itam dafa tànn ci xam-xam ndax nee na tëbuma rekk tànn ko dafa am lu ma xool ba gis ko moo tax ma tànn ko gis naa ne fees na dell ci xam-xam gis naa ne ku jëfe la mu jàng la te na mu ca mel kenn dabu ko ca gis naa ne itam sa piir la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal rëy la ca def mu ngi ko ubbee waman lii bi ustaazin aluuzu bi wirdihi yaqiini yaqiinan kulla hawlin bi mawlidi hmm? mu mel ni soo xoolee ku mel ni Ahmad dem Sokone fuuri bu rëy boobule borom wilaaya bu rëy boobule borom xam-xam boobu nga xam ni li mu def ci senegal kenn defu ko firi alquran firi bu rafet boo xam ne def ko ay volume yoo xam ne néew na nga gis ko ci àdduna bi ku ko def Hmm? man waxuma sax mu jël tarixa bi ci Seyd Cheikh Ahmad waaye ci taalu bi Seyd Cheikh Ahmad la ko jële mu di Sidi Haaji nga xool ko mel noonu ci xam-xam mënoon rëy mënoon am nu mu jàppe boppam waaye mu gis ne bëgg naa naan ci ma alxayb te bëgguta jiitu ilimaanam ndax bu ko defee du am cër mu ñëw bootu ci gannaaw Seydi Cheikh Ahmad Tijaani jaare ko ci Seydi Haaji Malick hmm? su ko defee képp ku ngeen gis muy contre tariqa soo ko nattee ci xaadima jaxate kala xaadima jaxate kala moo ko raw rawatina tariqa Sidi Ahmad Tijaani soo ko nattee ci maam ahmad dem Sokone moo ko raw kon nag Serigne Mansour Sy borom daara yi da daan wax ni li la yàlla defal ngay muñe li ñu lay def waaw li la yàlla defal ngay muñe li ñu lay def tabaarakallahu kon tasawuf li ci jiitu mooy jiital téere yàlla léegi nag tasawuf yàqu na ba am na ñu dugg ci tarix ñoo xam ne wax nañu ne alxuraan xàmmee wuñ ca lu dul benn xaraf bu ñuy wax waaw te li mu niroog neuf a tax te kooku boo doon konte njabootam bari nanu ñu ko gëm topp ci gannaawam ñi ay xale lanu ñi ay jigéen lanu Hmm? ñi ay mag lañu yoo xamante ni duñu xalaat képp koo xam ni nee na suufiyanke la tasawuf lay dund te fonkul alquran nitu seytaane la tasawuf imam Shaaraani nee na alquran a ca jiitu ñu ne ko lu ca topp mu ne roy yonent bi ci sunnaam ñu ne ko bu ca topp mu ne lekk lu dagan te léegi waxuma sax gannaawal alquran yonent bi xamuñu sax siiraam ba mën ci roy ci moom dara ah. léegi nag aklul xaraami moom leen dappati ko moom la ñu dëkk ndax koo xam ne xamuloo alquran xamuloo xadis wax dëgg yàlla yalwaan nga war a lekk waaye waroo lekk hadiya yalwaan nga war a lekk waaye waroo lekk hadiya kon nag lekk hadiya dafay daal di xaraam mutlaqan dafay xaraam kon tasawuf cosaan yi mooy alquran cosaan nag buñ ko waxee mooy fondement bi néegu tasawuf fondement bi mooy alquran moo ci jiitu la ca topp mooy sunna ba ca topp mooy aklul xalaali lekk lu dagan yàlla na ñu yàlla fayal Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu toog na ba jikki nangootu la lekk yàpp ñu ne ko lu tax malik mu ne sàmm si ñoo maandootul bëri sàmm yoo xam ne lañu ñu yafale seeni jur toolu jàmbur la te bëgguma lekk yàpp woo xam ne lu xaraam da laal waaw moo tax bu dee ne lekk na yàpp la rek gàtt bu mu yaral boppam la wala koo xam ne yàpp wam ko jox wóolu na ko am na sax ñu ne dafa faf bàyyi lekk yàpp waaw ndax rek eh, lu lënt li ci dugg tasawuf a tax bu du nag tasawuf lu ñëw rek mu lekk ndax sharia may nan ko ko waaye tasawuf mayu ko ko bi ci topp mooy ijtinaabul maasi mooy moytandiku bakkaar mooy tëndiku bàkkaar kon képp koo xam ne dugg na ci tasawuf ñeme bàkkaar na ko leer ne tasawuf du ko jariñ bu wooyee boppam mu tasawuf itam du dëgg ndax sufiyanke dafay ragal bàkkaar di ko moytu dafay lekk lu dagan dafay roy yonent bi te itam day jël alquran mu nekk imaamam ba ca ba ko juróomeel muy kaful aza dafay moytandikoo lor jullit ñi ci loxoom wala ci làmmiñam waaw kii dund tasawuf kuy téye làmmiñam la te itam loxoom da ciy jëriñ nit ñi waaye du leen ci lor surtout jaamu yàlla yi ñu ne ko ba ca topp imam Chaarani mooy lan mu ne aadaul xuquuqi mu ne fexe ba àq yi dox sa diggante ak yàlla nga fexe ba góor góorlu ba matal ko xam naa ne sax jafe na nit matal ko yàlla kenn mënu ko fay waaye nga góorgóorlu rek ak àq yi dox sa digganteeg jaam yi bu dee waajur la na mat ndax am na ay àq yoo ko ameel su dee jabar la na mat bu dee doom la na mat bu dee frère la na mat bu dee sœur la na mat bu dee wëllërale na mat bu dee dëkkandoo la na mat waaw ñu ne ko bu ci topp mu ne bi ci mujj mooy tuub ci yenn càggante yi waaw am na ñoo xam ne sax dañu jël tuub ñoom def ko commencement dugg ci tasawuf ndax gis nañ ne tuub mu gën a mën a seetal nit ci bàkkaar imam shaarani nee nak su fekke dajale nga yi juróom-ñaar yi na la leer ne na la leer ne sa néegu tasawuf tabax nga ko ba mu rafet mën nañ la wooye sufiyanke waaye nee na bu manqué rek nee na sa tasawuf baaxul bi ñu laajee cheikh Ahmad tijani radiyallahu taala anhu moom dafa wax ni gàllankoor yi yi nga xam ne mën nañu gàllankoor nit ba nga xamante ni du mën a yegg ci yàlla waaw gàllankoor yi gàllankoor nit ba du mën a yegg ci yàlla nee na ay xijaab lañu waaye balaa ñu dugg ci xijaab yooyu dañu laajoon Seyd Cheikh Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu lan moo di tasawuf nag sëriñ bu mag ba di sayidi ali harazim moo ko laajoon Seyd Cheikh Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu boo demee ci jawahirul maani من سألته رضي الله عنه عن حقيقة التصوف فأجاب رضي الله عنه بقوله اعلم أن التصوف هو امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن من حيث يرضى لا من حيث ترضى من سألته لا جن سيد شيخ رضي الله تعالى عنه عن حقيقة التصوف أنا لن مودي دق دق تصوف لأن يعني فأجاب موتونتما رضي الله عنه يلنك يلا قرم مم سيد شامل التجاني بقوله جوا خمجة نما اعلم خمل يوم من علي حرادم خمل خمل أن التصوف نيك التصوف شدق دق بوكو بقي خم هو موم امتثال الأمر موي جفن ديكو ديكلو يالله ca nam la ko digale wajtinaabu nahyi bàyyi ak moytandiku la mu la tere def lim la digal moytu la mu la tere te bàyyi ko fi zaahiri boo wétalikoo ànd ak nit ñi wal baatini boo wéetee fu la kenn gisul lu la yàlla digal nekk ca lum la tere bàyyi ko moo xam da ngaa wéet nga wétaliko ñu ne ko ndax fofu rek la tasawuf mi mu ne dedet min haythu yarda nga def ko nak ci ni yàlla bëgg mais nak la min haythu tarda bu ko def yow ni nga bëgg xam nga tay amna ko xamne da fay top yàlla na mu bëgg waye topewul yàlla mom ni yàlla bëgg waaw xam nga amna ko xamne tay euh tey mu ngi ànd ak sëriñ bi waye serigne bi da ko santagul lu mu mënul waye bu fekke serigne bi teglena diko sante lu mu meunul rek bu yagge legi mu daw kon and serigne bi teglena diko sante lu mu meunul rek bu yagge legi mu daw kon and ba deggul na ko xamne tay milliardaire la waye dafa nay waye bu fekke sa bu ñewé rek serigne bi ne ko jox ma 2 millions jox ma 3 millions jox ma 4 millions ci mom joxe mënu ci dara bu yagge mu rocceeku dootul dona taalibe ko moy taalibe bi nga xam da ngay jékki-jékki rek doto xamanti ci mom dara waye bu fekkee nag e, tabewul waaye nag sawar sawarna sawar su fekkee sëriñ bi yoni nako ci barab sangam man na daw dem fa yoyé mu sawar nak di def fi ak sëriñ baa man ko jàppeeg waaye saa bu sëriñ ba wàccee loolu nag santu ko nag loo xamante ni xolam nanguwu ko su boobaa nag mën nañoo gis ak ñàkk taalubeem léegi nag Seyd Cheikh Ahmad Tijaani nee na jaam yi noonu la nu mel ak yàlla am na koo xam ne mën naa topp yàlla ci julli ndax cëram sawar na ci julli mën naa topp yàlla ci koor waaye nag du topp yàlla mukk ci joxe azaka ndax dafa nay mënul joxe azaka waaw dafa nay am na koo xam ne tey jii mën nay jullil yàlla waaye du jóg fajar mukk danay julli nag mais fajar toujours da koy fay lu tax ndax dafa bëggi nelaw kooku dafay jaamu yàlla moom ni mu bëgge am na koo xam ne dana julli dana woor dana julli dana joxe azaka mais bu weeru koor ñëwee mënoo fexe ba mu woor mu ngi taafante laayu di wuti tappale damaa jabet ak damaa nangam ak nangam ndax koor ci boppam lay bañ a dégg waaw tukulóor la dafa ragal xiif kon nag si Cheikh Ahmad Tijani nee na dangay topp yàlla ni yàlla bëggi kon mbir mi lu mu naqari naqari ci sa bakkan te moom la yàlla bëgg rek danga ko def nee na tasawuf nag foofu lay yóbbu nit ki mooy lu la yàlla digal lu mu metti metti nee na foog nga def ko te noonu la yonent bi yare woon saxaaba yi ba xare badar la muy metti metti nga xam ne seen bakkan leen doon joxe dañoo dem xare uxut dañoo dem waaye tey am na ñoo xam ne ay jullit lañu waaye bu jihaat taxawoon rek ñu deltu gannaaw waaw kon topp yàlla tabaarakallaahu ci ni yàlla bëgge loolu mooy tasawuf bàyyi tere yàlla ci ni mu bëgge loolu moo di tasawuf sëriñ Cheikh dal yàlla guddal fanam te yokk wéram dafa wax ne senegaal dañoo seet li gën a woyof ci diine rek ñu jël ko te mooy julli rek ak ko ci koccal waaye eh, bëri na loo xam ni lislaam la yàlla santaane na ko waaye fi leen ko bàyyi waaw am na koo xam ne la muy xëy di ko dugal ci poosam lépp ci carte la jóge te mënu ko bàyyi te amana sax ci këru diine la bok koku bu ne day dundu tasawuf tasawufum dëgeerul ndax weddi na Seyd Cheikh ndax sey Cheikh nee tasawuf moy def li la yàlla digël bàyyi lim la tere ci nimu ko bëggee mom yàlla mais pa yow ni ko bëggee kon bu fekkee li nga métier wo dafa haram te nga di talubé Cheikh buñ la waxé ne la métier bi baxul bul wax ci la sama tara nga nek ndax sëñ Cheikh nee na bàyyi ko ndax moom la yàlla bëgg yàlla daf la dafa bëgg nga bàyyi lii donte yaa ngi ciy ami milliard daf ne nga bàyyi ko doone mënuma ko ndax yàlla du teg jaamam lu mu mënul kon nag jéemal ba ñu gis ne tëlee fi waaye moom daal dangay mën rek def waaw wala dangay mën rek bàyyi loolu sëñ Cheikh ahmed tijani neena du tasawuf nak mom lol la wax inna at-tasawuf huwa imtithaalu al amri wa ijtinaabu nahy fi zaahiri wal batin min haythu yarda la min haythu tarda moo mom sayyid Cheikh radiyallahu taala anhu waxna ne لول مودي تصوف ندمتي سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه كنا كيغا خامني دا فا بغا جيل تصوف ديف كو ميرو شيطاني نا خامني تصوف موم موي الاسلام تيغي سو فيكون الاسلام امنا لو غنا سيل لا نتي تان مودي تصوف سيدي عبد القادر الجيلاني نينا التصوف دا نيو كو تباخ تي جيروم نيت ñetti dégg nga ponk maanaam bu doon néeg la fondement bi juróom-ñetti pied la waaw ñu ne ko limal ñu ko mu ne da am tabuk maam da ngay am euh, euh, da ngay am ñàkkuk Sayyiduna Muhammad nangoo ñàkk comme ni Sayyiduna Muhammad nangoo woon ak ñàkk yonent bi sallallahu waaw dem na ba toog daan toog weer Seydi Hadji Malick Sy nee na këram ceeb du fa takk waaw ñaar yu ñuul yi rek al aswadaani la doon dunde tàndarma ak ndox mu ñuul waaw ni mu nangoo woon ñàkk nag nee na tasawuf bu lay yaree nee noonu ngay nangoo ñàkk ñàkk gi la yàlla teg da koy muñ te nangu ko waaw ndax ñàkk bokk na ci balaa yi nga xam ni ku ko yàlla teg rek bëgg na la ñu ne ko bu ca topp mu ne dëddu àdduna Muusa ndax yonent yàlla Muusa fonkul woon yére waaw yére bu diis la daan sol jamonoy sedd ak jamonoy tàngoor te argal waaw ngir rek deddu aduna ñu ne ko ak ban mu ne tukkiik yonent yàlla isa ndax yonent yàlla isa amul woon kër da daan wër ci dëkk yi rek di waar nit ñi di leen delloo ci yàlla di defar xol yi waaw da daan waar nit ñi leen delloo ci yàlla di defar xol yi waaw su ko defee nee na suufiyanke bi noonu la war a mel dafa war a nekk kuy wax ak nit di leen gindi di dox dëkk ak dëkk pour def ci ñoom njub pour gindi leen yóbbu leen ci yàlla am nag yërmande ga Seydina Isa amoon waaw waaw nee na itam fokk mu am nee na tumuraankeeg yonent yàlla yaxya ak nangoog isxaaq nee na ak e, tuddug yàlla ak ayuba gis nga moom dafa jël misaal yi ci yonent yi Seydina Ayub alayhi salaam mandarga ba ko yàlla joxoon ca li koy wane ne soxnaam si dana ëmb mooy dafa daf ne ko boo demee ba nga xamante ni mënatuloo tudd lu dul yàlla su boobaa na nga xam ne soxna si ëmb na loo nar a wax rek turu yàlla lay nekk su naroon a wax cheikh maam cheikh maam cheikh Diop su demee ba nar koo wax def naan laa ilaha illallah su wax dama xiif danaan la ilaha illa allah moom daal lu mu nar a wax rek làmmiñam dafay mbasu tudd yàlla allah allahu akbar subhanallah la xawla wala quwwata illa billah loolu daal mooy waxam mu ne ko loolu mooy mandarga ba kon nag sufiyanke bi noonu la war mel waaw bu farata rek na dellu ci tudd yàlla làmmiñam dafa war a tooy xépp ci tudd yàlla dégg nga nee na itam am tabeek maam Ibrahim ndax Seydina Ibrahim dafa tabe woon lu mu am joxe ko kon nag mutasawif bi fokk mu nekk koo xam ne dafay roy ñu baax ñi seet kenn ku ci nekk la nga baaxle mu jéem a incarné jikko boobu ci boppam kon tasawuf du dara lu dul rek defal xol bi moo tax si Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu wax ne kiiraay yi nga xam ne mooy yiir xol bi ba du mën a yegg ci yàlla bokk na ca lekk gu bari waaw nee na sàggan ci tudd yàlla moom loolu mu ngi ko wax ci jawaahirul maani waaw nee na lekk gu bari nee na kiiraay la loo xam ne nee na bu fekkee nit ki foo ko fekk lekk na ba suur nee na kooku du mën a yegg ci yàlla parce que nit ki foog mu ñeme xiif nee itam sàggan ci tudd yàlla fu ñu la fekk yaa ngi wax ci politique yaa ngi wax ci football waaw yaa ngi wax ci mbuusóor loolu mën na la gàllankoor nit ab jullit dafa war a yar làmmiñam ci bàyyi mboosóor te mooy wax lu amul njariñ tarku ma la lu amul njariñ gàddaay ko waaw bañ a yàq sa sa sa waxtu ci yu amul njariñ bañ a yàq say wax ci lu amul njariñ waaw te wetti li ko tudd yàlla nee na kasratu naw mi bari nelaw nee na day tax doo mën a yegg ci yàlla nee na itam bëri wax day tax doo yegg ci yàlla nee na itam bari ay xarit waaw mooy bëri àndandoo rek fonk mbooloo fu ñu la fekk yaa mbooloo waaw doo nangoo wéet mukk ndax ragal wéet waaw wéet nag dana dimbali jàngkat dana dimbali jaamukatu yàlla wéet dana dimbali jàngkat dana dimbali xalaatkat dimbali jaamukatu yàlla waaw nee na itam bëri looy naan waaw bëri naan baax na nag ci santé waaw waaye bari lekk ak naan daal ba biir bi fees dell dalay tàyyil loo dalay tàyyil tabaarakallaahu su ko defee ñii bu fekkee yaa ngi leen di topp ci seen tarbiya ndax bari na ñoo xam ne baatu tarbiya xamuñu ko ndax baatu tarbiya baat bu bees la waaw lañu xamoon ci jamono yonent bi mooy li ñuy tuddee al adabu waaw ndax yonent bi utiliser wul baatu tarbiya dafa wax ne addabani rabbi fa axsana tëdibi moo tax yonent bi tasawuf mooy njëkk ci moom sharia waaw tasawuf mooy njëkk ci moom sharia tabaarakallahu imaamu malik bi ko yaayam di joxe pour mu jàng daf ne boo daf ne ko boo demee ci sëriñ ba di jàng na nga yittewoo roy ay jikkoom ci yarak ak teggin lu ëpp loo yittewoo jël ci moom xam-xam waaw si Hadji Malick wax na ne ci xam-xam la nit di duggee aljanna waaye gis yàlla yar ak teggin moo koy may kon nag yar ak teggin boobu moo di tasawuf ñu ne tasawuf moo lay defar ba bu musiboo ñëwee ci sa kaw nga rafet njortu ci sa boroom nangul ko ko te muñ ko moo xam feebar la walla ñàkk la walla balaa la boo xam ne dal na ci sa kaw danga ko nangul yàlla waaw su ko defee muñ ko yàlla boole la ca muñkat ya te yàlla ku bëgg mu wéy muñ la nga rafet njortu ci sa boroom gis ne lii mu la teg mënoon la teg lu ko gën a metti te doo ca mën dara walla nga jàpp ne lii mu la teg moo gën ci yow waaw nee itam tasawuf mooy tax boo toppee yàlla doo ca naw sa jëf waaw dangay xam ne ka may kàttan may la pexe may la wér goo toppee goo ko toppee kooka mooy mbir ma te mooy yàlla moo tax iyaaka naabudu wa iyaaka nastain iyaaka naabudu fala ñi ñiy dund sharia fa la ñu taxaw iyaaka naabudu yow yàlla yow rek lañuy ñuy moo tax ñu jàpp ne ñoom bu ñu jaamoo yàlla yàlla da leen di fay d'accord nanu waaye ñun tasawuf dañ ne li tax sañu loo yàlla fay ma ci li ko jaamu nee na ndax li nga jaamoo yàlla yépp yàllaa ko moom ndax wa iyyaka nasta'in ci yow laa dimbandikoo ba man laa jaamu ndax wiir gi ma am ba mën laa jaamu yaa ma ko may yaa ma bind ba mu mën a nekk mbindeef man laa jaamu yaa ma jox lekk ma lekk nga jox ma naan ma naan ba mu mën a am kàttan guma ma la jaamoo alquran jima jang ya ko mom suuf si ma taxaw ya ko mom qibla bi jublu ya ko mom kon lan la am ci jaamu gi lepp la kon nak jaamu na la ndax ya ko fayeko waaye nag fayuma fayeekowuma mala dara dama lay jaamu rek ngir sopp la iyyaka na'budu wa iyyaka nastain kon tasawuf mo lay defar ba doo ñàkk teggin sa ak sa borom ci jaamu yalla melni iblis ne ko fayma lima muk. la jaamu mukk ndax jaamu gi ak jaam bi yépp yàlla moom waaw su ko defee nag kon jaam bi dana mën a mucc ci naw la mu def waaye nag dana am chance su sant boroomam ba ca topp mooy tasawuf mooy tax bu la yàlla joxee xéewal nga mën a mucc ci makarullahi ndax am na ñoo xam ne xéewal ga leen yàlla defal dañ caa mujj beew mu nekk istidraaj ci ñoom te bu fekkee nag tasawuf moo la defar dangay jàpp ni xéewal gii la yàlla jox am na ñu bari ñum fi weesu joxu leen ko mu jox la ko kon nag mbaaxam la nga ne kon nag danaa sant yàlla sant ki mu jaari xéewal gi ci moom wante itam eh, la mu koy gën a sante mooy delloo ko njukkal jaamu ko ndax yonenti bi sallallahu alayhi toog na ba jikki muy julli di julli di julli ba soxna si ne ko xanaa yàlla gërëmu la mu ne ko afala akunu abdan shakura kon nag xéewal gi ma yàlla defal mooy tax danaa ko sante noo seulement di ko wax ci sama làmmiñ mais nag di jaa di ko jaamu ci jaamam yi di ko jaamu itam ci ay rakka kon bëri na ko yàlla defal xéewal xéewal googu nag na cay geestu ay mbokkam ci geestu ay dëkkandoom ngir sante ko yàlla loolu tasawuf moo la ko mën a defal ngoog te bëri na koo xam ne jox nañ ko xéewal yàlla defal na ko xéewal xéewal ga nekk ak njey ci moom bu mujj di ca mooy yàlla mais jaamoo ca yàlla tasawuf nag moo lay defar ba bu xéewal ñëwee danga koy jaamu yàlla waaye doo ca mooy yàlla waaw boo demee ci آه، استغفار خدير مي استغفار بو ام سولو واو مو مو ليسان موغي وخك يالا نانكو نعم اللهم اني استغفرك من كل ذنب نانكو نعم ام سولو لا الاستغفار بو ام لنا لا الاستغفار بو جرا موكل اللهم اني استغفرك من كل ذنب تبت اليك منه ثم عدت فيه واستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك فوف لا سخلا وم وأيضا ما يكونتني وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو سواد الليل في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية يا حليم mu su ko defee ñaan googu mooy yow yàlla maa ngi lay jéggulu bépp bàkkaar boo xam ne tuuboon naa ko ba pare dellu ca ak ñu ko mën tuub ba pare dellu ca astaghfiruka min kulli zanbin tubtu ilayka minhu suma uttu fii ma dellu di la jéggulu min kulli ma waadtuka bihi min nafsi summa lam uufilaka bi bëri lu ma la lu ma waxoon ne danaa ko def ngir sa jëmm te jotuma ko def nag ma jéggal bàkkaar boobu wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa xaalatani fihi xayru maa ngi lay jégalu bépp bakkaar boo xam ne sa jëmma taxoon ma koy def waaye nag mujj na am lu ca rax lu bokk ak yow maa ngi la koy jégalu wa astaghfiruka min kulli nicmatin an'amta biha alayya maa ngi lay jégalu bépp xéewal boo ma xéewale fastaantu biha ala maasiyati ma jëfandikoo ko ci mooy la bëri na koo xam ne yàlla may ma xaalis yàlla may ma ba yàlla may ko xaalis mu jël xaalis ba di ca mooy yàlla waaw wa astaghfiruka yaa alima alxaybi min kulli zanbin aznabtuhu maa ngi lay jéggule yow mi nga xam ne yaa xam kumpa ci bépp bàkkaar boo xam ne def naa ko fii diyaa in nahaari ci lëndëmu ci leeru bëccëg gi laa def bàkkaar bi aw sawaadi leyli wala ci lëndëmu guddi gi fii mala in moo xam ci mbooloo laa ko def aw xalaa in wala damaa wet def ko fii sirrin ci secret laa ko def aw alaaniyatin wala ci feeñ maa ngi la koy jégalu yaa xalimu yow buur bu lewet bi tasawuf moo la mën a togg ba nga mën a am ñaan yu baax yii sa digganteeg sa boroom di ko jégalu te doo naagu te ku saxoo jégalu déjjërluwuloo ci bakkaar tasawuf moo lay defar ba nga gis ne bakkaar sax chance la ci yow ndax bëri na koo xam ne tey ñàkk def bàkkaar moo ko rekki digganteem ak boroomam lu tax dafa jaamu yàlla seet ne musul def bàkkaar ci dundam tax mu foog ne moom lu mu wax yàlla rek yàlla da ko war a def hmm? te yàlla bu ñëpp àndoon di ko moy mooy wàññiwu ko dara su ñëpp àndoon di ko jaamu jëriñu ko dara kon nag jaamu gi sa konak la kon nak su nit nyak mooy yàlla danger la ci moom ndax mën naa jur ci moom al ujbu naw jëf te iblis nga jàpp ne kon bakar bi nga def yow ñaar doye di moo tax nga def ko nga nangu ko ndax doomu aadama nga la matuloo boo matoon ko def ñaar moy bakar bi kat bul wax mu ne du bakar te itam bu ko xeeb nanga ko jéggulu waaye na nga xam ne itam musal na la ndax boo demee ba bëgg a fëgg sa dana gis ne tooñoon naa yàlla bi sàngam ah kon nag xaw ma jéggal na ma bàkkaar boobu wala déet kon naa gën a góorgóorlu jaamu yàlla ndax sama dara wóorul kon bàkkaar itam tasawuf moo lay wan la def bàkkaar warul tax nga naagu dafa war a tax nga gën a góor góorlu saxoo tuub te bakkaar ba itam loo ca dellu dellu del tuub rek tey jéggulu waaw tey jéggulu xam ne ak doomu aadama nga sag matadi moo waral nga tabarakallahu def bakkaar ndax bakkaar kenn mënu ca mucc kon mbokk yi dafa mel ni eh, waxtu wi dab nañu eh, ñu tegani foofu suñu baaraam ci tasawuf incha allahu bu ñu yàlla mayee bu ñu dellu see yeggale ko jàmm incha allah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ngi gërëm tabaarakallaahu eh, eh, mam Cheikh tabaarakallaahu ci liggéeyam bu rafet eh, di ko sant di gërëm itam soxna Xadija ñimma ba di gërëm borom kër gi tabaarakallaahu Ceerno Hamidou macha allah di gërëm itam tabaarakallaahu Alaaji Badra di gërëm njuga der ci marché zeng ñu ngi di gërëm di leen sant di gërëm soppe yépp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh